parti bi Mbaye Ndiaye Macky Sall moo lay yónni wala lan mooy secret wu yaa xam mbay wala lan la. waaw Ahmed xam nga man toujours laaj boobu dama koy faral di dégg mais su ma ko déggee. Mhm. parfois daf may jaaxal parfois mu reetaan loo ma mais Ahmed mhm. ci politique laa nekk nekkuma ci leneen ba pare engage ci wetu koo xam ni su ma digganteeg moom ay ati at la balaay politique. mu mhm. doon suma kilifa doon suma mag. loolu su weesoo ñu dugg ci mbirum politique bi mais soo nekkee nit ci politique ak ci àdduna lépp loo nekk ak moom da nga war nekk ak moom su fekkee nekku ngor la da nga war nekk ak moom su neexee su naqadee nga nekk ak moom donc euh, bàkkoowuma ni damay dugg ci ay dossiers soo te su ma sañoon comme ni ma koy waxee sama wax sax du bare mais toujours soo ma gisee ma wax rek peut-être daanaka ki waroon wax wala ñëw waroon woo waxuñu te ma xam ne wax yi ñuy wax ci yàqal lañu jëm te am na ci sama disposition ay këyit wala leeral yoo xam ne su ma ko waxee tuuma bi dañ mais choisiruma quand même ni dama bëgg toujours dugg ci dossier chaud parce que fi ma nekk mhm. nga xam ne da ngay liggéey dimanche ba ajjuma benn bis nga am booy noppal mooy samedi ala kulli xaal chaque guddi journal bi ngay def doo ko dénkaane di ko xool jot amul doo am jotu reer doo jot am jotu añ depuis ñetti at ma nekk fii quasiment lu ci ëpp fii laay añee ci entreprise bi donc mënoo ñàkk jot ba pare lu nekk nga dugg si mais di ñu war comprendre une bonne fois pour toutes man tolluwuma fu may prouver dara Macky foo tolluwuma dara fu may tëñi tëñee. pour am ñu bëri dañ jàpp ne est-ce que nekkul moo lay non parce que am na ay voix yoo xam ne ñoo gën a euh, autorisé. waay yow sa bos bi am na porte parole. Mhm. gouvernement bi am na porte parole même bu dee sax benn la. Mhm. Euh, am na ñu mën a wax nii mais pourquoi yaa xam chaque jour mooy génn au front. d'abord li may njëkk a préciser Macky Sall. du genre nit boobu. du nit kuy làqatu ci ginnaaw kenn di yónni kenn. un ah. deuxièmement ñun ci parti bi bari nañu mais kenn ku ne Ahmed ak sa tempérament kenn ku ne ak sa style kenn ku ne ak sa mënin Seydou Gueye ak xam mbay ay xarit lañu sama mag bu baax la nirawuñ style nirawuñ tempérament Abdou Mbow ñëpp xam nañ sama digganteeg moom nirawuñ style nirawuñ tempérament Mame Mbaye Niang su ma kóllëre ñu bokk parti ñoo mais ñoo ñëpp ay xeexkat lañu mais ku si nekk da nga koy defee sa style peut-être man sama style ni ma koy defee. Mhm. Euh, parfois day nekk loo xam ni day attirer attention mais du lu ma seet li ma soxal ci loolu xam nga lan la mooy position morale ak position éthique xarit da ngay loyal ak moom àndandoo da ngay loyal ak moom su mettee nga nekk ak moom su neexee nga nekk ak moom mais euh, dafa jaaduwul nga nekk président Macky gënoo ci Sénégalais yi gënoo say moroom ñu tànn la soo xoolee gouvernement ak ak secrétariat exécutif national soo boolee ñëpp matuñu téeméer ci 16 millions de sénégalais ci 2 millions cinq mille yoo xam ne ñoo woteel Macky Sall mu gagné premier tour ak ay téeméeri téeméeri junni militant bi nekk APR ci benn ñu tànn la ci. def na ci position nga ànd ak teraanga. Mm-hmm. ba pare su mettee nga ne du ma ci taq. mais est ce que nekkul loolu moo tax ñu bëree bëri na yaa xam bay. Mm-hmm. jubóowul ak punkal yu APR yu bëree bëri parce que yow da dem en solo demal sa bopp doo xaar décision parti doo xaar gouvernement bi jël ay. lu officiel nga wax ci ngay dem noonu moo tax ñu ne yow da nga naqari woo ak waa parti bi yëpp afin punkali waaw xam nga Ahmed APR euh, histoire am diñ ci bindul lu bare Sénégal ba nga xam ne lu si bari da ciy ump nit président Macky Sall dafa dem bi ñu nekk ci opposition ah, dana daan faral di wax nit ñi dafa am ñetti permanence mooy permanence normale am officielle classique bi ñëpp xam permanence waa ah, këram ak permanence su téléphone dafa am ay ñoo ñu mu àndal ñoo xam ne dañuy fës ñoo nekkoon ci terrain bi dafa am ñoo xam ni rakk ak mag ak ñoom yàgg nañu avant ñoo xam ni c'est des gens plus ou moins de l'ombre euh, man mën naa ne ah ci ñooñu laa bokkoon ba nga xam ni peut-être parfois c'est vrai dinañ la xoolee bët boo xam ni euh, xam nga politique dafa siis nañ la xoolee bët boo xam ni peut-être kii il est favorisé peut-être kii am na proximité diw peut-être am na proximité c'est vrai soo jëlee l'APR Euh, en dans une vision classique nga xool direction bi dans une vision classique ah peut-être ñi ma fa jaxasool barewul torop ñi ma gën jaxasool peut-être parfois mooy les gens de la base mais du ma ko dikk ni dama am ay ay ay xarma yàlla ku nekk mais c'est vrai kenn ku ne la ma lay ñi nga réerool dañoo bari loolu moom ñu bari wax non kenn ku ne ak style xam nga man peut-être style j'agis en solitaire j'agis de manière euh, solo mais loolu yëpp sama style la am na ñoo xam nga di nga gis bon man à part à part loolu moo tax ngay naqari yow à part secrétariat national amul benn kuréel ci politique ci nguur gi ci APR ba benno bu ma bokk bokkuma cellule communication benno bokkuma cellule communication APR donc damay agir solo li ma mën parce que je suis un journaliste de profession waaw d'accord mais ba pare ah mais nag yaa jënd carte membre du politique discipline de parti aussi d'ailleurs non non aw du man je ne suis pas je ne suis pas un militant wala un politique classique en terme de comme su ma jëlee comme sama naataango ki ma nekkal ñu milite Dakar Plateau ku mel ni saalif Keita Salif Keita base la nekk xam ñu xaritoo avant Macky di nekk ci yi ñu bokk rëbës ci njëkk taxaw di samp ay comité man nekkuma ci affaire comité ak base mais dama nekk ci parce que Macky Sall diversité d'action la soxla donc man am naa sama style keneen am na style style yëpp suñ ko conjugué su loolu ci la président Macky Sall di gis boppam d'accord euh, yaa xam nga nañ ñëw nag euh, ci l'affaire Sonko mhm. noonu la ko ñu bëree bëri di di di tuddee mhm. ak wàllum euh, audio beeg audience beeg mhm. Issa Sall Mansour Faye Ousmane Sonko ak Yakham Euh, lan lan lan moo xew audio bi Ousmane ko moo ko def déedéet audio la woon bu yàgg. expliquer ñu yow lan moo xew. damay ñëw parce que peut-être li ma wax ni sàkku naa ci Sénégal yi dégg ko te ay fee wax ay fee du ma ne niruwuma comme ñeneen du ma waat parce que li may wax yëpp c'est vérifiable audience bi ñuy wax 2013 la am et pour être précis ci mois de novembre 2013 lan moo ko indi. fee laa lay jox ci ndeeteelu weer ci weeru octobre si lañ njëkk teg loxo bu Njaay defeere ko moo am retour de parquet ci diggante boobu ci la ni disposé na transiger moom Tayibu Tayibu transiger pour fay daal état bi teg loxo ci ay këram teg nag loxo yëpp ci kër yu bare ba mu des nag kër gi gën a am solo ci kër gi ba nga xam ne nekkuloon ci turam mais daf ko tegoon ci turu kenn ci famille am ak yeneen yoo xam ne ci ay membre famille bi ñu bëggee teg loxo ci këyit kayit ci kër yooyu ci la fippu indi jalgati ci transaction yi mu leer ka nag su signéwul ci loolu su waxal ñu mu ko dénk ñu signé ci loolu dañ koy teg loxo ñu ci novembre période boobu ci la Ousmane Sonko sàkku jaar ci Issa Sall ñoo camarade de promotion ñoo génnandoo ci la sàkku ci gisanteeg Mansour pour Mansour intervenir ci président mbir mi sottiwul moo tax le 4 décembre teguñu ci weer teguñu ci weer le 4 décembre 2013 si lañ jàppaat Taïb Ndiaye bi yoon dañ ko defeere def ko mandat de dépôt yóbbu ko kaso donc li may wax nii ay faits yu précis la xam nga dégg nga coow li audience yi ci circonstances yooyu la audience yi am entre octobre novembre ci la affaire bi amee novembre 2013 ci la Ousmane Sonko après plusieurs insistances Cheikh Issa Sall Mansour Faye recevoir ko loolu mënu ko weddi malgré waatam yu metti yi te c'est à sa demande. gis na comme li ma doon junjuree di wax. mais nee nga toogul toogul ak Macky Sall ba tey. non kenn waxu fi toog ak Macky Sall toogam ak Macky Sall moom ci affaire Covid la dikkee bi muy recevoir ñëpp. kon audience bu mujjul am. audience non Macky Sall ko bi muy def pour intervention pour diggante bi. bu njaay comme li mu engagé woon pour def transaction boobu ñu nangu këram yëpp remplacé ko parce que dañ ko toppoon ci affaire mbirum gerte ay milliards yu bare mu changé avis fipu si lañ ko nee nag affaire bi day yegg ba ci dañu lay jàppaat donc Tahibou Ndiaye ñaari yoon la ci diggante ñaari jàpp yooyu ci la Ousmane Sonko intervenir parce que ñëpp xam nañ ni relation moo ko Tahibou Ndiaye loolu umpul donc loolu soxlawul weddi loolu mooy histoire audience boobu te comme ni ma ko fa waxee kenn enregistré wu fa kenn si ñoom ñett ni ma ko waxee mu leer loolooy mbirum audience boobu novembre 2013. mais moom quelque fan moom mu ne yéen yéen a bëggoon mu toog ak yi parce que da ko doon yónnee ay këyit ndax ay societé mu xaw ma la. waxoo xam nga loolu ay waxu picc la. xam nga yomb na da ngay dem ci internet rek tàppe lu nekk nga gis ko li may wax ne xam nga dama joxe ay date yu précis mbir yi ñu ko boole xam nga moom parfois su ko neexee mu ni. Euh, dañ ma woo woon euh, diñ ma sàkk woon gisante ak man parce que affaire syndicale la xam nga moo ko wax ci biir bu gémee parfois mu ne noo benn dossier la parfois li nañ delluwaat ci 2013 Ousmane Sonko ban solo la mën amal Mansour Faye ban solo la mën amal nguur gi ban solo la mën amal président Macky Sall bañ koy topp di ko ñaan pour gisante ak moom xam nga yéen wul maanaam lim leen doon yónnee ay ay lettres ak yooyu ne leen kaay leen ngeen fay mais donc moom dafa a wax xam nga su ko neexee mu ni déclaration bi c'était pour une raison syndicale parce que yëngutum yi mu doon yëngatu impôt moo tax ñu ma doon woo pour dalal su ko neexee mu ni lettre ay affaire u lettre euh, euh, euh, dama doon vérifier lii ak lii ak lii wax dëgg mënul am ñetti version d'accord mais mais mais mais nga baal ma wax kàcc yi mën na am fukki version mais dëgg moom mënul am ñaari wala ñetti version. d'accord mais nee nga enregistrement amu foo woon. amu fa. ah lu tax Mansour Faye ne amoon na enregistrement. loolu beneen la non attention Mansour Faye bi muy njëkk a wax. waaw 2STV bi waxu fa waxu enregistrement dafa wax 2STV bi. waxu fa affaire enregistrement. mais déglu nga conférence de presse conférence de presse am conférence de presse am. waaw la wax ni. am na luy firnde li ma wax ñu weddi ko. su ne prix. ma génnee ko kooku non tout ça c' est dama bëgg ñuy wax ci ay fait fait yi xam nga bi. dama ci joxewaat ay précision mën naa ci waxaat leneen mais xam nga nag soo ko seqee comme Ousmane Sonko dooyal say bal yëpp door ko benn yoon. moo tax baa bi nga daal di koy yenu ni yow yaa xam mbay yaa xam mbay. mais combat bi lu tax yaa xam nga combat bi dafa am une suite logique. mais suite logique yow Ousmane ah, Sonko jotee wala mais pourquoi nga yenu combat ah dama ni la. Hmm. soo nekkee ci régime Macky Sall. waaw soo nekkee ci keppaaru Macky Sall. waaw képp ku sànni xeer Macky Sall. képp ku ko dingat képp ku ko tuumaal tuumaal na la dingat na la. mais ana ministre yi. non non xam nga man je ne me pose jamais la question de savoir. ana responsable je me je me pose jamais la question de savoir est-ce que diw moo war a def lenn defu ko. mais moo jaaxal ñu bëri parce que. donc da nga ni ma lu tax ma dugg ci ah, combat bi wax naa la ko. sans sama engagement vis bi vis de Macky benn ah. deuxièmement xoolal Ahmed lu am solo. dama xam ni xoolal Mansour mi ngi ci dëgg. ñetteel bi Ahmed Mansour xamante wu moom ci politique. première dame Marème fay Sall moo ma ko présenté boobu du dara du dara mu wëlbatiku nag taxawu sama diggante ak man comme taxawu xarit comme ni ma ko waxee ci benn interview. ba ma demee ba ñu gañee ñu dawal ay weer ma réeroog président Macky Sall temps boobu dañu ma doon daw mel ni ku gaana Mansour da daan taal otoom bi ñëw suma kër sama appartement Médina di ma taxaw nekk ak man donc gis nga nit su la taxawoo démb mu metti tey su mettee ci moom da koy taxaw